armi xëy wax ak euh, askanu Sénégal ci dossier bi nga xamante ne mooy Sweet Beauté yéen cabinet gannaaw seen confrontation keroog ca bureau doyen des juges Ousmane Sonko wax na démb Adji Sarr jot naa leeral xam le ne la ko yitteel mooy procès public euh, moom la sàkku ñëpp teewee procès digganteem ak Ousmane Sonko ngir lépp mun fa jaare leer ca la xewoon ca Sweet Beauté yéen cabinet les Échos ne Adji mel ni mel na ni kuy dëkk Ousmane Sonko euh, mi mu xamal ne gune màgg na kamu doon def naka sudul noonu ak yeneen ak yeneen euh, moom aji Sarr ne tey bëgg naa lépp leer euh, joxoñ na baaraamu tuuma Ousmane euh, Sonko ca la xewoon ca suite boote bëgg naa askan wi mun cee gindeeku moom Adji Sarr jot naa riccu sax fitna gi am ci réew mi te la ko waral mooy dossier suite boote ne bu xamoon ne nii lay demee du ko porter plainte waaye wax ji wax ji mooy Ousmane Sonko mi mu joxoñ baaraamu tuuma ne moo def kon tey na ñëw wuy ji yoon ngir leeral googule dossier Adji Sarr ne xàmmeetuloon Sonko keroog ca bureau doyen des juges ndax xarum yar la nurool ndax keroog na mu daan waxee doon lu ko bett lool yéen kaabi di turbine aji sarak Sonko ci procès lañ jëm ñoom ñaar ñile bokk na ci Adji Sarr lak la mu jota sulli ay mboot ci bile dossier xam le ne daal la woon wonni na dootul nangu mukk daanaka ñuy gàkkal deram procès la bëgg ngir leeral mbir yeeg fa mu féete ca suite boote yéen kaabi di sursaane delluwaat na ci bureau de des juges confrontation goge doxoon ci diggante Ousmane Sonko ka Adji Sarr waaye nag mel na ni yéen cabinet la gësam Ousmane Sonko la jur euh, mu am ñëgg-ñëggu xol euh, ba fippo euh, yéen cabinet ma nga tukkee ci maître El Hadji Diouf di avocat Adji Sarr laaj yu doy waar la mu yàlla laaj Ousmane Sonko doon lu ko mer lool lool ca la xewoon ca suite boo teek mbir yaak nam fa demewoon ci diggante mag Adji Sarr moom la sursa xëy di ñu jukki yéen cabinet coal suite boo te pondema wureegu ca buyeso Ousmane Sonko ak Adji Sarr altine ji ñu jëm capitaine capitaine Seydou Seydou dina Omar Touré yéen cabinet wolu nañ ko altine bu 11h jotee dina dem ca bureau doyen des juges wax la mu xam ci mbirum suite boote yéen cabinet waa Pastef ñoom ñu ngi sàkku non lieu total nañ ci seetal wecc Ousmane Sonko ndax lañ koy tuumaal defu ko ca kenn ci jege ñaale Ousmane Sonko réew mi quotidien Fadilou Keita lay wuyoo teg nañ ko loxo démb lañ ko tegee loxo mooy dafa joxoñ baaraamu tuuma nguur gi ne eh, seen loxo génnul ci eh, réerub Didier Diatta ak Fatou Fulbert Sambou Euh, dem sax bay naan gendarmerie xam nañu li xew euh, Fadilou euh, Keita ci jamono ji ma nga cay loxo yoon yéen cabinet le mandat loole nag doon lu jaaxal lool waa Pastef bureau politique bi jot nañ cee jano ak taskatu xibaar yi xam le ne nag daanaka jot nañoo ñaawlu ni yoon te tëddeewul njaaxaanaay ci mim réew làq doom dóor doom moo fi ne bëgg nañu daal daanaka xaaj ak seen bañ am ca ñañuy teg loxo bu ñu sukkandikoo ci waa Pastef ñaawlu sax anam ya ñu tegee loxo ki nga xamante mooy seen jegeñaal Sénégalais Fadilou Keita mu ngi ci yéene kabi di le mandat yéene kabi di libération ne ku yabo sentu tribunal gu nar a jax lool ndax Fadilou Keita ak Mouhamadou Lamine Bara Diop ak Oscar Diouf euh, dañ leen gindi ci seen ëllëg ci alxamisu tey ji euh, waa Pastef euh, taxaw nañu tembe ngir ñaawlu anam ya ñu tegee seen natango Bassirou Diomaye fay wax ne yëfi kenn xàmmetu ko bokk na ci Ahmed Suzanne kamara wax na fi lu doy waar te ba léegi mu ngi doxi soxlaam bokk na ci Pape Alé Niang mi ci àjjuma bi dina euh, gësam dina gëstu euh, dossier am ca na mu gën a xoote yéen a cabinet Atoumane Diagne ak euh, Papito Keita Kara ñoom ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru desam gi ñu ne lañ leen fas yéene déglu bu dee nag Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye xurum xaq ñu ngi taaxirlu seen dossier ca tribunal yéen a cabinet l'Observateur xëy dugg ca kaso ya banditisme gafa am ña nga xamante ne leen di teg loxo te doon ñu doy waar lool yenn cabinet téeméer yoo ca jël euh, juróom fukki ak juróom benn ya mos nañoo dugg kaso te ñooñu ci kaso ya ñu ne euh, fa la ñuy waxtaanee ba nas seen gang xool yan pexe la ñu jalaat saay bu ñu génnee kaso yenn cabinet di l'observateur xëy duñu ko dégtal yenn cabinet di enquête ne lu jëm ci euh, te jum kaso Pape Alé Niang ki nga xamante ne Pape Mawo Diouf wax na ca rafetlu ko ga waaye nag wax na ngir ñu sàmmonteeg yenn yi ci mim réew bañ ko jukki ci penc mi moom Mawo Diouf mi ji jiite ASTEP ak itamit eh, yor kaddu coalition Benno Bokk Yaakaar eh, xam le ne lii di eh, presse beeg démocratie bu Sénégal lenn rek moo ko nar a gàkkal moo ko nar a xajamal muy Pastef ak waa Yewwi Askan Wi bu ñu sukkandikoo ci Pape Mawa Diouf ay kàddoom ci biir yéen kaabi yéen kaabi di l'évidence ne fitna go woon ci Assemblée nationale ba Amy Ndiaye ñibbi jëlee ca gaañu gaañu ñu topp ca kii di Massata Samb ak Mamadou Niang Eh, UPIR yéen cabinet ci jamono ji eh, gaa yaa nga ca eh, kër Moustapha Sy njiital Moustarchidine wal Moustarchidaat yi ngir mun leen a teg loxo ndax dañoo njortu ne xëy na foofee la ñu làqu ji ngir bañ yoon teg leen loxo mu ngi ci yéen cabinet di l'évidence fitna googee sax ci assemblée nationale njiitu réew Macky Sall wax na ci ci ndajeb conseil des ministres nee na fi dak mbir yaa ngi bëgg ëppi loxo sàkku na ci yoon mu def liggéeyam ci dossier lii xew ci ne kërt ne jonn ci assemblée nationale jëlee ci ay gaañu gaañu yéen a bi di direct news post la xëy du ñu ko saytul njiit ma di Mouhamed Diaité ma ko jiite bees xam le ne post googe bëgg na ko jooyantiwaat mu méngoog jamono fexe ba tamit daanaka poste dox waaye nag fexe ba poste finance ñu soppi ko mu doon banque sàkku nañ ci nguur gi mu fexe ba baral loxoom rawatina gën a yokk loxoom koppar yam mu doon jagleel poste bëgg nañ ko mu ñu xayma ko mu toll ci fukki milliar ak ñaar yéen a bi di Le Soleil xëy di ñu dégtal ndaje conseil des ministres nees mun a def ngir gën a suqaliwaat euh, collectivité territoriales yi yéen cabinet njiit réew Macky Sall sas na ci gouvernement bi ngir ñu béy ci seen waar yéen cabinet yooyu les collectivité territoriales ci 24 heures njiit réew Macky Sall santaane na ngir ñu mun leen a taxaw ca na mu gën a gaawee euh, bokk na ci sax journée national gu ñu jagleel wàllu décentralisation dañ ko amal fukki fan ak benn ci weeru décembre euh, te mu ñeel élus territoriaux yi ne fii ci Sénégal yéen cabinet stade mu ngi ñuy dégtal si Cissé coach El Tactico yéen cabinet la gis ci équipe nationale ne progrès jéego am na eh, ci wàllu mental bokk na ci tamit eh, am na ci ay joueurs yoo xamante ne jotuñoo football eh, ci mondial bi te loole bokk na ci di gàllankoor équipe bi équipe la goo xamante ne gu suude la ñoom ñaa ñoom ñëpp joxante loxo ngir dooleel seen taxawaay ci wàllu football Aliou si ne ku yaboo séntu leen ci yeneen jongante ngir ñu war fa wanewaat seen i manin yéen cabinet di l'évidence ne cap di kuréel gi boo taskatu xibaar yi nañu seen seen maire eh, ci tegum loxo Pape Alé Niang moom jot nañu amal te defalu ñaxtu demb ca maison de la presse eh, journée sans presse ca la ñu nar a soobu dàq ñu sax ba du mooyu eh, bépp ndaje goo xamante ne gouvernement bi def na ko bu fekkee ne Pape Alé Niang dafay wéy di des ci kaso bi nañ ko may afiya mu delluwaat ci ndab njabootam delluwaat ci métier moom taskatu xibaar bi di Pape bu ñu sukkandikoo ci Cap yem ak fu ñu jeexale xëtu yéene kaay tënk la woon incha allah dañ ci dikkaat na mu gën a ci faram sëriñ ngóor jëm yi mooy boroom kemaan di sëtub sëriñ Mor Ja ku ko xam xam luy kéemaan kii moo ñëw ngir dimbali jàmm ñi ci seen wér gu yaram lu waay di jàmbat bu si jugee mu jug ci sa yaram ku rab jàpp jinne mbaa nga émurit mbaa ndox mu si wala nga néew kàttan ñëwal ci moom lépp lay dindi bëgg nga listu xaar gu leer bayre yokkute mbaa lu lay aar bul ko waaj ñëwal seet ci sëriñ ngóor mi ngi tëngeej are xaal wooteel ci 77 543 27 19 wala 76 371 31 48 28. indi leen garab gu yéeme yéeme di faj juróom-ñaar fukki jàngoro 70 maladies loolee tax mu dippee si faaxu joni joni Cheikh Ousmane Touré nee dina faj lii di tension hémorroïde interne externe estomac rhumatisme ballonnement muy biir boo xam ni fu mu toll di jooy lii di kuli nag ak góor gu tëlee ulcère impuissance sexuelle fatiguement général nag moo ci man yéen ñi bëgg am adresse ki nga xam moo di Cheikh Ousmane Touré mën ngeen ko fekk fii 57 11 Sifa wu joni joni daal mooy mos dolli.